rahmatullah li ma bëggoon a gis lépp gis naa ko gis naa lépp dégg naa ko ci jii bu ma sa bu ma bu sañoon ku di murit dana dana déglu ci kaw suuf kuy dund boo ma sañoon sañ jéetaay bii ku di murit dana ci bokk ma wax wax ji wax ji wax ji ko ba noppi waaye loolu mooy mooy mooy mooy mooy xasida yi xasida yi xasida yi mooy sëñ bi xasida yi mooy sëñ bi ku bëgg a xam sëriñ bi da ngay ne ci xasida yi ku bëgg sëriñ bi da ngay ne ci xasida yi fonk xasida yi de ku wut sëriñ bi da ngay ne fonk xasida yi sëñ bi mooy sëñ xasida yi mooy sëñ bi xas yi moo nekk moo nekk diggante moo borom digg ma yonent bi digg ma boppam xasida yi mooy sëriñ bi kon liggéey bi yi réy na liggéey bi Sëñ Tuubaa réy lool ndax luy luy lu baax rek luy lu baax rek nañ ca nekk nekkal ko ca mu dib liggéeyam waaye xasida yi nag mooy liggéey bi mooy moo moo jiitu ci liggéey bi mu jiitu ci liggéey bi bu doon xare bu doon bu xare ña nga xam ne ñoo jiitu xare bi topp seen gannaaw ñu jiir gisee fu xarab fu yéefar yi toll bu fekkoon noonu ab xarit la kon jàngi xati fonk këti xasida yi xam xati xam xati xasida yi bëgg këti xasida yi liggéey këti xasida yi kon ñooy jiitu ci kanam xasida yi mooy sëñ bi buñ ko xamee ak buñ ko xamul xasida yi dafa jar jóg jàngi xam-xam am xam-xam ñëw ñëw nag ñëw nag nekk ci biir xasida yi di liggéey xasida yi dafa ja dafa aajo jàngi xam-xam ba xam-xam ñëw nag jébbal si lépp xasida yi nekk ci sëriñ bi loolu loolu loolu laa joon dégg ngeen wax bi loolu la laa xew dafa war a daa daa war jóg jàngi xam jàng ba ne ar dellu nag nekk ci xasida yi nekk ci sëñ bi dégg ngeen wax bi loolu la laajoon loolu la laajoon jërë ngeen jëf damay damay yéen yéen yéen dama leen di firi damay firi rek waaye def ngeen lépp waaw nii rek la loolu loolu nag du bee sëñ bee tawfeex sëñ bi moo dugal ci loolu moo leen ci moo leen ci nargan moo leen ci wommat loolu du yéen sëñ bee waaye wax baa ngoog xel loolu loolu loolu mooy dama ne am na góor gu bari xel ba muy gënee di gone di ndaw ñuy waxtaan ñuy déggoo lool bu ñu waxtaanee baag si si mbir si ma ne ah wax ko waaye diw kooku daa xamul li xew rek mu ne waaye bàyyi li nga wax xam li xew a jafe <laughs> waaye yéen ñi yéen xam li xew <laughs> mu ngoog de noonu la de kon jërëjëf jëf ñëpp